organiser mm-hmm. pavage yi. Eh, jënd nañ du matériel ñëw jox la jàpp si. mais yow da nga leen waxoon ne boo liggéeyee ba pare da nga mettre un comité de suivi en place pour que avec ce comité là ñu xool euh, nan la ñuy installé waatee. nga pare pavage si kaw nga nga installé wu yow nga pare pavage bi euh, comité ba déggatuñu leen yow buñ la woowee sax duñ la jot. non man mën nañu bañ jot boo ma ñàkk ma jot kooku du du mais am na ñu ñuy waxal ci biir mairie bi comme le le secrétaire municipal la Omar Gueye Cheikh Mbacke mii fu mu ma jotuma su ma envoyé texto ma message ma woo ko. d'ailleurs en en ligne ñu jéem koo jël Cheikh Mbacke. ah salaam salaamaaleykum. Euh, aleykum salaam Cheikh Mbacke yaa ngi en en direct. Euh, en direct et face à à à, ne yow yaay le président euh, du regroupement des marchands ambulants tabliers euh, de Grand Yoff et de et de Patte ñu doon mhm. waxtaanee ce qui s'est le 17 avril. Euh, mu nekk ngoon boo xam ne violence bu méttee métti la ñu la la ñu gis méttiwul li ngay wax nii pour une opération de déguerpissement mais si mais si gars <laughs> yi koy waxee dafa grave tellement ba da ngay fone sax dafa <laughs> mais si gars woon on revivre de de de de mauvais euh, donc mu nekk jàmmaarloo yu métti métti euh, ci nammeefu mairie bi ne dafa war a assainir l' espace dafa war a libérer li nga xam ne euh, moom mooy la la la voie publique euh, lan moo expliquer la violence de votre de votre réaction qu'est-ce qui s'est passé euh, may mun a ñoo ngi lay nuru di nuyu di nuyu say téléspectateurs ñuy si ñuy suivre yëpp di nuyu la maire Madiop Diop di la wax ni violation boobu ngay wax noonu loolu nekkul loo xam ñun dañ ko souhaité woon te xam naa ne tamit la maire souhaité wu ko woon cest dire problème bi li ko indi mooy daa am ñu wàcc ci terrain bi ñoo xamante ni peut-être xale yi xamuñ leen woon parce que ñoo yàgg nañu liggéey ak mu job mu ñuy yëkkati parfois ñu dem ñaan ko mayaat ñu tegaat mais bu mujj bii nii jox nañu sommation wax dëgg yàlla jox nañu sommation nu ñu le treize na ngeen jug le treize avant le treize jàllale na information bi wax ñëpp ne na ngeen dugg mais xam nga jaay yi bi ñu jugee le treize ñoom ñëwuñ le treize ñëwuñ la quatorze man naa ne le quinze lañ soog a ñëw biñ dikkee yëkkati xale yi mais le seize dafa am benn groupe bu dikk boo xamante ni xale yi xamuñu leen te ñooñu aussi tamit xamuñu xale yi biñ dikkee fekk xale yi jël seen bagage yi dugal ko ci jardin bi ñoom ñu daal di dikk dugg ci biir jardin bi dañuy génne bagage yi loolu moo andi woon affrontement bi amoon seen diggante ñoom mais li gën a yokk problème bi mooy kenn ci ñoom dafa génne woon arme blanche arme blanche boobu mu génnee nag mooy yéegal xolu xale yi mu commencé andi ay sànni sànnante xeer xam nga te xeer toujours mooy mooy andi violence mooy jóge ci côté xale yi dem ci côté eh, ñi nga xam ne ñoom la fa eh, maire yebal ñooñu aussi tamit di ay xeer di leen répondre mais problème bi mooy boo gisee ma jóob di ko fa mu am boobu léegi may dégg ñu dañ fa am ay yuuxu wala affaire yooyu loolu li ko waral mooy biñ taxawee man ak commissaire monsieur le maire instant bi mu agsee noonu xam naa boobu dafa meroon parce que moment boobu bu waxoon ak man wala mu wax ak commissaire rek yooyu noonu fa coow yooyu yoo fa am waru du fa am waaye nag li ko jot am ñun dañ koy regretté parce que ñun dañoo nekk ay doomu réew mi am ñu ñun bari ñoo xam dañoo nekk ay doomu Grand Yoff mu jóg ni mu yëlifee Grand Yoff yëlifee ko borom kër yeeg ñëpp noonu la ñuy yëlifee ñun marchand ambulant yi saa bu méttee su ma demee bureau wax dëgg fa yàlla saa yu ma ko ñaanee damay may wax dëgg yàlla. amoon na fi nag jamono yoo xamante ne bi muy waaj a woo nañu daan nañu dama bëgg ngeen waxtaan ak samay conseil parce que dama bëgg a defar Grand Yoff te loolu ku ñu ci woo dañ la ci wuyu parce que mënuñu nekk ci mbedd mi di fi exercer suñuy activité ñu taxaw daan dañ koy defar ñu taxaw di ko opposé ñu ànd ci ak moom yëkkati suñuy bagages yëpp duñ di koy fekk fa dara. mais ci waxtaan wi ñoom dañoo xamaloon nañu bu ñu pawee ba pare la maire dina teg ay ay mbar yu moderne maire nag dafa waxoon ni moom promettre nit ñëpp dinañ ci am mais ñi ci mën a am dinañ ci am comprendre daan ne bu yàlla dimbalee mu ma mu daaneel marché Grand Yoff tabaxaat ko dina ko yëkkati def ko trois étages am ci marché ambulant aussi ñu jël ñu ñu ci ñu ci dugal mais bi pawaas bi paree ba léegi yàlla dafa dogal ne. toogaat toogaatuguñ ak ma jóg wax dëgg fa yàlla dem nañ maintes fois mairie mais amuñ sens toogaat ak moom keroog bi coow di bëgg a am bi ñuy këtee woo naa ko téléphone boobu dafa jàpp ne dama ko doon ñaan pour xale yi toog mais dama mais ci loolu laa doon woo maanaam mbaar yooyu ñu waxoon ba xam fan lañ ci toll te ñun dañ koy tàllal loxo di ko wan wax ne ko ñun ci njabootam lañ bokk ñun bu ñu sañoon duñ mus a am problème ñun ak ak ak la maire ak Grand Yoff sax parce que Grand Yoff ñun fa la suñu teranga nekk ñun Grand Yoff bu tàkkee suñu teranga tàkk Grand Yoff bu yàqoo suñ teranga yàqu kon nag dañ koy ñaanaat encore une fois ci sa antenne bi ci profité di ko wax ne ko njabootam ñoo ne ko njabootam ñoom ñoo koy tàllal loxo fi mu nii mën na mën naa ne am na ci ñu baree bari ñoo xamante ni suñ la gisee dañ lay wax ne la dimbale ma lebal ma 1000 francs wala lebal ma 2000 francs pour lu ñu wan a te yàlla seere na métti na métti na trop. Eh, te ni ñu koy tàmbalee loxo nañ glace de. <laughs> non non du question du question du question jënd glace mun a. mais saa dafa loo xam ne dafa am lu jaxase bu ko dëkkee. bu ko déglu xam nga xeex waaw xam nga xeex kenn du ko a. bu ko nga xeex xeex xeex kenn du ko dëkkee te dafa loo xamante ne nii. Eh. dafa am loo xamante ne nii waxtaan moo koy lijjanti waxtaan moo koy moo buñ coowee ba tey jii tere yi télé yëpp du ñu woo parce que peut-être xeex moo ko andi woon mais xeex boobu nag du ko lijjanti waxtaan bii nga def nga woote nii rek moo ko mën a lijjanti. mais mais mais mais Cheikh Mbacké. Euh, waaw yéen bu ñu leen yéen reconnaître ngeen ne nekku leen ci yoon. waaw bu ñu leen ne jóg leen le 13. même bu gaa yi ne même bu gaa yi ñëwee le 15. da ngeen da ngeen da ngeen war a jóg wala. à partir du moment où. yéen nag mhm. ngeen la principe que fi ngeen nekk waru leen fa waru waru leen fa waru leen fa nekk ou bien. dëgg la xam nga boo gisee damay la la 15 bi ñu dikkee dañoo jug problème bi ñoom bagage yi ñoo ko fekk ci biir Sardaigne loolu moo indi coow li kon jug nañ buñ buñ jugutoon dañuy fekk bagage ci kaw ci mbedd mi. te ñun dama lay wax ne la ñun duñ lal ci territoire duñ lal ci kaw tali bu débordé rek dafa am leneen lu ci rax waaye ñun fi ñuy lal yàlla sëriñ monsieur le maire bu dikkoon tey ji daan nañu ngeen ko bëggee. mën nañu lal te duñ duñ jege territoire bi duñ jege kër yi parce que Grand Yoff yàlla du ko may mbedd boo xamante ni bëriwut bëriwut commune yu mu ko may ñaareel bi tamit ni ñuy ni ñu koy ñaanee monsieur le maire noonu lañ koy ñaanee président de la république gis nga xale yi nekk ci mbedd mi ni nekk ñuy wax ay marchands ambulants ak secteur informel il faut que état jàpp ci lépp lépp maire yi mënuñu ko état il faut que mu jàpp ci parce que xale yi nii ñoo doon génn di dem ay ay Nicaragua di di dem ay Barça wala Barça ñu sensibiliser leen ba xale yi toog comme que xale yi gëm nañ réew mi nañ jàppale xale yi pour xale yi mën a toog ci réew mi liggéey ci réew mi ñi nekk ci mbedd mi ay doomu Sénégal la gis nga mbay mi bu doxoon na mu war a ñu bëree bëri doo leen gis Dakar kon nag bu yàlla dogalee Dakar dem mel ni mu mel nii il faut teg ay politique yoo xamante ne dinañ jàppale xale yi xam nga accompagner ñu fexe ba ñu am foo xamante ne dinañ fa mën a nekk ñun waxuñu nañ nekk ci mbedd mi éternel ñun le maire bu amoon fu bu fu ñu recasé fu mu mën a nekk ci Grand Yoff ñun dañuy bëgg comprendre nga mais na na accessible rek mais mais mais xam nga ni nga waxee nii. Ah. Eh, votre discours il est il est il est audible. Eh, ah. c'est différent de posture bi ngeen am le le 17 on voit des images dans lesquelles euh, le maire ñëw ñu naan kaan dafa mel ni y a une tentative de politisation. ñuy yuuxoo maire bi eh, naan Sonko Sonko ñenn ñi naan dafa bëgg a saboter élection bu rafet bu ñoom Diomaye ak ñoom ak ñoom ak ak ak ak Ousmane Sonko alors cette tentative de manipulation là euh, fan la jóge ak ban place la am euh, ci nii nga waxee léegi. gis nga a man suñ coolee am Grand Yoff gis naa ci image yu gis naa ay image yoo xam ne Thiès la sax ñu bind ci Grand Yoff gis naa ñu ñu wane benn benn car Dakar dem di ni waa Grand Yoff ñoo ko taal gis naa ñu wane benn benn auto police ni waa Grand Yoff ñoo ko taal te loolu lépp dara amu ci. waaw mais yuuxu ngeen maire bi. mu ñëw ngeen naan Sonko Sonko naan li ngeen votel Sonko moo ko metti loolu moom bu bu bu bu bu la xam nga dama ne la ma taxawee ak commissaire maire bi mu dikkee ci premier jour bi boobu noonu bu fekkoon wax na ak ñun maanaam moo tax xale yi di di ko wax moom moom ci ci campagne yëpp foo dem dafa mel ne booy loolu rek mooy seen slogan mais ça ne pas dire que ni ñun dañoo am loo xam ne dañ ko ëmbal maire la ma jóg wala dara ba tax mu dikk ñu koy kii loolu parce que mu dikkee moom moom ci boppam dafa wax ne waruñu woon xeex te ñun aussi tamit bëgguñu xeex ak moom comprendre nga du question que dañu jënd glace wala dara mais suñu diggante ak maire dafa mus a rafet wax dëgg yàlla dafa mus a rafet kuy wax da ngay yàlla kese mais noonu la na mer trop nag mën na mer trop mais wax dëgg fa yàlla tamit aussi mën les mairies bu ñu jouer seeni rôle mm-hmm. benn commerçant warul nekk sur la voie publique les marchands ambulants tablier yàgg nañu wut ay sites de recasement tabax nañu ay centre commerciaux pour que gars yi rejoindre marché yi mm-hmm. léegi pour une solution viable ñu mën mm-hmm. di liggéey seen liggéey yéen lan ngeen bëgg exactement euh, may mun a merci beaucoup da nga wax wax bu am solo mooy da wax nañ ay centres commerciaux pour ñu dem rejoindre ko gis nga centre commerciaux yooyu noonu lu ci baree bëri Maître dañu ko dañu ko subventionné loon def ci ay milliards te xaalis boobu noonu dañu ko war a lijjantiwaat ba xam na nan la ko nan la ko promoteurs yi nga xam ne ñoom moom centre commerciaux yi def parce que am boo xoolee gis nga centre centre commercial bi nekk Thiaroye bi nekk bi nekk euh, Parcelles ak bi nekk ak bi nekk euh, du si Cap mais bi mu dendal bu Mamour Cissé bi centre commerciaux yooyu yëpp ak yi nekk Colobane yëpp dañu yëpp dañu ko jëndaloon ñu ubbi ñu ubbil ñu ay ay compte ci benn banque mais ba fi mu toll ni ñuy wax ak yow nii place yooyu noonu mën mën nañ la wax ne xamatuñ ci dara yaa ngi dégg ñaareel bi site bi nga xamante ni moo nekk Petersen boobu rek boobu Abdoulaye Wade lijjanti woon na bañ jot ci bañ commencé woon di ko tabax pour ñu mën faa dugal marchand ambulant yi mais lépp dañ koy commencé mais après ay politique moo lan ngeen bës lan ci maire bi c'est-à-dire mu yéen ngeen mën a continuer seen liggéey lan ngeen bëgg ñun maire bi ñaari ñaar ñaari point ci lañ koy woo bu njëkk bi mooy li nga xamante moom moo ko waxtaanoon ak ñun daan nañ su ma paawee ba pare dinaa def ay mbaar yoo xamante ne dina am ñu ci mën a nekk de un mooy fi mu toll nii nga xamante ne mbir mi nii dafa daar daar nga xamante ne ni tabaski dafa jublu si ah, ah, ah. waaw monsieur le maire waaw base bi base bi fi nga toll de affaire dafa dar nga xamante ne fi mu toll nii fi mu toll nii tabaski dafa dafa jublu si. Eh. ñun dañ ko liñ koy ñaan mooy mu may ñu ñoo xam ñu organiser wu jéem a toog xam xool nuñ tafoo. mën a am lu ñu fortaatu yóbbu suñu kër ba tabaski passé en attendant ñu ñuy continuer waxtaan wi di xool ay solution yoo xamante ni dina durable parce que man jàpp naa ne ñun ak moom bu ñu waxtaanee war nañu mën a liggéey liggéey boo a dund ci ñi nga xamante ñooy liggéey ci biir commune bi. Oh, léegi la mhm. ma laaj ko mhm. moom lan la ci mën alors. non daa am point bu wax. Mhm. parce que dafa ne bi may bi may pavé dama leen waxoon ne su ma teggee def ay mbaar ngeen ñëwaat est-ce que wax loolu concrètement nga teg ay mbaar ngeen ñëwaat. Euh, monsieur monsieur le maire boo boo boo fàttali ko waxoon nga. wilaan non non boo mënee yaa wax rek. non non waa xaaral xaaral est-ce que est wax loolu <laughs> Cheikh Mbacké. est dama koy laaj ba waaw ba ñu andiloon ko ba ba wilaan sax indiloon ko indiloon ko benn maquette maire yi. pour ñu xool ndax dina dina dina mën a nekk wala mënul nekk peut être man naa mu fàtte ko mais loolu moom dañu ko waxoon te bu te bu laajee ah. conseil yi nga xam ne ñoom lañ doon waxtaan ñoom aussi si la léegi ah, xam nga man Cheikh waaw yow suma xarit nga suma nit nga dëgg la mosuloo ma ñaan lu ma bañ loolu dëgg la mais xam nga man du ma waxantu loolu te bëgg naa tamit ñu waxal ma lu ma wax musuma mm-hmm. wax ak yéen ne leen suma pavé ngeen ñëwaat musuma mm-hmm. leen ko wax mais du ma si oh. insisté du ma si insisté vraiment amul solo. mais ah. xamul lu am solo. Hmm. xam nga waxoon naa la bés ma ne la. Hmm. su ma leen mayee benn place kenn teg. waaw ah. yow ñëw nga sama bureau ma ne la. Hmm. kenn bu tegee keneen teg si kanamam. nga ne ma kooku mun ma ko yëkkati parce que dañuy naan day day liggéey may liggéey. may la comme mun loo ko yëkkati baa ma defal sama bopp li mu war a def. dëgg la. xam nga commencé woon ngeen jaay si kaw si kaw si kaw pavé yi. Mm. ma woo ma ne la Cheikh waxal sa boy nañu reculer bàyyi voie bi. waaw ku teg képp ku teg si kanamu keneen na fa jóg. dëgg la nga ne ma loolu duñ ko mën a gérer. Mm-hmm. mais nag comme mënoo ko gérer bàyyil ki yoon ki yoon dénk mu ñëw gérer boo. la maintenant xam nga problème bi mooy lan. ñu am nañ mm-hmm. ay yéenaa vraiment pour ngeen jaay mais nga boo defoon ay mbaar tey si pavé yi. ñu mm-hmm. ne am ngeen ku nekk un mètre. ñu jël ku nekk cinq mètres. mais est-ce que loolu mën nga leen ko nangul. no loolu pour le moment mënuñu si avancer. si avancer monsieur le maire. waaw euh, Cheikh xaaral xaaral xaaral donc loolu mënoo si avancer. mënuñu si avancer léegi deuxième deuxième. Euh, proposition proposition mu ne nga may leen ba tabaski bi paase. nga bu tabaski paase ngeen waxtaan en attendant bu tabaski paase booy booy jógaat ay xeer ay jógaat. non non non non bi Pape Abdoulaye. je vous dis ah s'engager. non non Cheikh Mbacke vous allez vous en da ngeen di. engagé wu xam naa xam naa man maa bu ma jógee mooy ñëw ci man. Mm-hmm. bu dem na ba ba ñu ma sax dañ maa jox xaalis ñoom. dëgg la ba ñu ma ko man dañ maa jox xaalis ma dama bàyyi leen. bu ñu jógee bu jógee mu ñëw mais xam nga Cheikh. mënul mm-hmm. contrôler ñuy jaay ci mbedd mi loolu leer la. parce que yoon mayu ko ko. su demee dañ ko naan da ngay jaay ñuy jaay mënul leen dara. dëgg la bu mu jël fii du ko mën respecté. Mm. waaw d' accord mais léegi. ñii mm-hmm. dañuy jaay. Mm-hmm. dëkk bi dafa takk. Mm-hmm. dafa tar dëkk bi dafa tar. métti na dëkk bi dafa métti. métti na léegi yow est-ce que mën nga leen may fii ak tabaski. non non bu tabaski jotee di nga nekk ci sa droit plein droit. naa leen nee naa leen. Euh. nañu organiser ay foire tournante dans la commune de Grand Yoff. ñu xool ay espace def ay foire de quinze jours tournée mais ni mbedd bi meloon mooy moom Cheikh xam na ne jaadul woon dëgg la gis nga kenn amul foo xoolal imaginel en trottoir bu am huit mètres minimum huit mètres minimum la kenn amul foo jaar mais yow mënuloo mënuloo leen may ba tabaski bi. non mënuloo nekk kii may mënuloo mais tabaski bi c'est mais bu ñu lalee ba tabaski passé boo ñëwaatee pour dindi leen. mais su boobaa man duñ jógal seen man maa jël engagement monsieur le maire man maa jël engagement. Cheikh Mbacké waaw nga ne. engagement bu ñu mayee ba ba tabaski passé ah xam nga ñoom après lendemain tabaski normalement dañoo war a bale. waaw. buñ dikkee duñ fa fekk dara loolu mën naa ko wax te luñ fa fekk dool kenn dootu fi yotaat kooku man maa man maa man maa ko ñaan te maa jël engagement bi. te moom tey dem naa maire ba mu xaleel ma benn benn audience. non monsieur le maire Maïmouna waaw mais vous prenez l'opinion à témoin. Maïmouna est-ce que tu prends l'engagement <laughs> non attends rek attends rek. gis nga monsieur le maire. attends rek. monsieur le maire. Ah? c'est que man. Ah. may mun a. bëgg naa ñu am ah, allez-y allez-y ci allez-y. gis nga may mun a. waaw. saa à dire monsieur le maire boo gisee mu taxaw ci point boobu parce que dafa am yu fi jaar jaaraat ah mais dama ne <laughs> ma man maa jël engagement bi te yaakaar naa ni bo te fu mu toll nii loo ko a léegi xam nga bu la yow kese la Cheikh bu la yow kese la naa ma daan wax ak yow kenn ah. ko dégg te tey àdduna moo ñu dégg c'est ça yéen ngeen ne monsieur le maire il est dans ses dëgg la. reconnaître ngeen ne da ngeen war a libérer la voie publique. Mm-hmm. nangu ngeen jéego yu muy def. ngir assainir mm-hmm. l'environnement. dëgg ko da ngeen ko ñaan mm-hmm. devant l'opinion nationale. mu may leen ba tabaski bi passé en attendant ngeen continuer waxtaan. bu tabaski bi passé le lendemain bu ñëwee di bale da ngeen di da ngeen di jóge foofu. du fa fekk kenn bu soobee yàlla. du fa fekk kenn waaw loolu ma loolu man loolu man maa jël maa jël engagement bi man Cheikh Mbacke. Maymuna lo kooku loolu man loolu. loolu ma ah? ko ñaan monsieur le maire ñaan la ko yow Maymuna. Cheikh la ko yow Maymuna te nga jàpp pour nga jàpp. waaw yëpp kon maa ko ñaan monsieur le maire ñaan ko waa Grand Yoff yëpp. Ah, mais mais monsieur ah. ñu ñëpp. mais sénégalais ñooy suñu témoin. xam nga. dëgg la Cheikh Cheikh gis nga monsieur le boo gisee ma lay ñaan. Ah. Ah. monsieur le boo gisee ma lay ñaan. Ah. keroog dama laa wax ne la gis nga ñu nekk ci mbedd mi dañoo mujj mel ne sama njaboot lañ man parce dañ ma yaakaar te man ginnaaw ma a dimbale. dëgg la monsieur le maire fu yaakaar te ma sañoon yaakaar jooju tas te yaakaar boobu billaahi ci yaakaar. monsieur le daal bu joxee accordam. suba day ñëw marché Grand Yoff ñun ñu topp ko voilà ah mu mu taxaw wax ak yéen gis nga nag le après tabaski mm-hmm. monsieur le maire il sera ñëpp a koy jàppale ci li nga xam ne moom mooy décision te moo gën sax may mun def nii sax moo gën may mun a waaw dama indilaat fitna boo xam ne mm-hmm. ah mm-hmm. xeex laay defaat ñu jóg Cheikh Mbacké mooy seen président moom moo moom moo engagé woo. barke Serigne Babacar hmm. bu ñu fa toogee. waaw ah. du ñu tabaski. xoolal boo ñëwee boo leen yëkkatee xeex day hmm. amaat. man ni ma lay xam comme maa xeex rek. Hmm. monsieur le maire. lan mooy lan lan nga leen may comme solution. solution bi mu leen mën a may. c'est que rus naa sax mu ñaan ko may mus ko mus ma may ma ko. mais laaj ko heure bu ma ñaanee ba ma may ko su ma yëkkati fitna laay yëkkatee. dëgg la. xamul loolu neexul monsieur le maire moom mi may ñaan ni moom mi may ñaan la ñaan waaw monsieur le waaw nee naa la mosuma la ñaan publiquement saa yu ma la daan ñaan dama la daan ñaan sa bureau mais cette fois ñaan publiquement xam ñaan ma sama bureau la ñaan publiquement Cheikh ah, waaw xoolal ñaan ma sama bureau waaw ak ñaan ma sa télé bi yëpp benn la parce que man yow sa jëmm rek laa respecté loolu moom dëgg la parce que sama nawle nga dëgg la bu ñu toogee sama bureau ma ak yow mm-hmm. dama lay jàppee comme suma bopp dëgg la ak kilifa gu may waxal ñu nekk ñaari kilifa. Mm-hmm. moo ko si tele bi yëpp benn la. dëgg la mais yow li nga bëgg yow bëgg nga ko de. Mm-hmm. dëgg te am nga yéene bi de yow. Mm-hmm. mais ñi la topp du ñu doxalee ni ngay doxalee. waaw mais daa am réunion bu parce que du organisation boo xam ne dafa formel. bu ñu defar mu am lépp tegu si yoon non non non. mais mais waxtaan aussi mën na mën na ah. am ne. waaw léegi nañu leen waxtaan rek ñu xool. bëgguma jël fi benn décision bu ma dul respecté. waaw parce que monsieur le maire boo gisee ma wax loolu da daa dama def ak ñoom réunion. waaw xam nga dama dama def ak ñoom réunion. waaw daan leen da ngeen maa yebal pour ma dem ñaani. waaw mais cette fois ci dama bëgg su ma ñaan li may ñaan dafay am app. waaw mais app bu jotee dama bëgg ñun ñëpp ñu respecté bu fekkee respecté ngeen ma. waaw ñu jox ma seen aval lool moo tax ma am fitu nii la bu bis ba doo fa fekk kenn. waaw léegi man tam mun naa leen ñaan dara jàpp naa ne loolu noonu nekk suñu arrangement ñun ñëpp. Ah, en attendant nag ñu ñu continuer waale waxtaan yi. léegi ko moom. mun ñaan dara. Mm-hmm. bu ngeen lalul. Hmm? bu ngeen lalul fan yi hmm. ba tabaski des 15 jours. ba tabaski des 15 jours. waaw. moom may leen du ngeen fay dara du ngeen pare ngeen jóg la lendemain tabaski. ah ñu bañ lal ba tabaski des 15 jours. waaw. waaw mais est-ce ah, que dinañ gagné dara. dañ gagné dara eh, mais xamul tax may may may def nii. Ah. c'est que man dama bëgg ñu jegante parce que ñëpp ay Sénégalais lañ kenn amul intention pour kenn perte wala kenn ñàkk dara mais tamit may mun a defar mbedd mi samay responsabilité la. Mm-hmm. képp ku oto laal ci kaw tali bi fekk amuloo foo mm-hmm. dox sama responsabilité la. Mm-hmm. xam nga responsabilité boobu oyof na nii mais diis na. diis na trop parce que kii kii oto rey ci kaw tali bi. ba tànkam damm ci kaw tali bi. fekk dañu occupé voie publique bi amul fu mu jaar pour dox mais man loolu dafa may topp ëllëg. Mm-hmm. mais may topp ëllëg. loolu dëgg la yooyu nag il faut yooyu tamit man tamit du ma leen est-ce que est-ce que jaadu na ma xool lu leen neex ñoom. Mm-hmm. ba ma lor sama bopp lor sama askan. lor lor askan bi léegi kii Cheikh. waaw même euh, je je pense que kii nu mu tudd maire commencé na wàcc. maire yuuxoo yi ngeen ko yuuxoo yéen nit ki jóge ci défaite présidentielle ngeen naan kaan ay sonko sonko sonko ah may mun a may mun a tamit a maire moo la gën a xam ne Cheikh léegi maire léegi xam nga ne Cheikh nu ñuy def waaw maire commencé na kii nu mu solution mu ngi mu ngi mu ngi am je mm-hmm. pense que boo leen toogee ak moom yéen de toute façon ñoom ñi ma ci waxal mm-hmm. ñëpp ils reconnaissent que vous êtes en train de faire du bon boulot ak Grand Yoff ils reconnaissent que tamit euh, mosuñu am ak yow problème li am ni incident la je pense que Cheikh Mbacké euh, mhm. maire aussi dafa am conseil municipal euh, am ñu muy liggéeyal je pense que mhm. fii ak ginnaaw suba boo leen mhm. demee toog di am di am solution noonu na waxtaan voilà commencé waxtaan ñu xool mbedd mi demee voilà en tout cas maa ngi lay remercier bàyyi naa leen seen bagage yi démb laa la ko jox voilà dama tey nga xool li nga laaj maa ngi lay remercier ci waxtaan bi